fukk ak ñeent nooyin ak mbënnum ndox ma
salaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yeenu njub ci émission bi weesu tàmbale woon nanu gëstu ci nettalib yonent yàlla nooyin mi nekkoon fukkeelu maam gannaaw aadama nooyin àndoon na ak yàlla ci biir jamono ju yàqu te rëbb gisoon nanu ni aji sax ji tiise ci xolam ba metitlu bàkkaaru doomi aadama mbind mi ne na coxoru nit réyoon na lool te fu ñu mën a toll lu bon rekk lañu daan xinte ci seen xol moo tax yàlla ci meram mu sell mu dagaloon far bàkkaarkat yi ci kaw suuf waaye yàlla jagleel na nooyin yiw ndaxte nooyin soppoon na yàlla te gëm kàddoom am bés nag yàlla ne nooyin dogal naa deewuk ñépp ndaxte dajal nañu kaw suuf ak coxor dinaa indi mbënnu ndox ci kaw suuf ngir far lépp luy dund ci ron asamaan waaye yow nanga defar gaal gu rëy mu nekk rawukaay ngir yow ak sa njaboot naka noonu diirub téeméeri at nooyin ak njabootam di yett gaal gu rëy googu waaye nooyin yemul woon ci daaj gaal ga rekk dafa ko booleeg di waare naan tuub leen seeni bàkkaar te wañu ko ci yàlla aju jub ji dina àtte àddina si ndax niti jamonoy nooyin tuub nañu seeni bàkkaar te gëm kàddu gi leen yàlla yëgal jaare la ko ci yonentam lu ngeen ci xalaat ci biir junni junni doomi aadama yi nekkoon ci kaw suuf ñaata ñoo ci réccu te gëm yàlla ba dugg ca gaal ga mbind mi tontu na ci ne ñu néew maanaam limub juróom ñett ñoo dugg ca gaal ga jaar ca ndox ma ba mucc ñaataa gëmoon kon yàlla juróom ñetti nit muy nooyin ak njabootam rekk ñeneen ñépp gëmuñu woon waxu yàlla dañu doon tànqam lu waareb nooyin boole ci di ko ñaawal ndax li muy defar gaal ñu koy reetaan teg ko sax ku xelam nekkatul ci moom ndax gaal ga mu doon daaj ci bërëb bu mësula am ndox déglu leen ni nit ñi doon ñaawale nooyin eh gaay xool leen góor gi di defar gaal gu rëy gi ci àll bile nooyin de dof na nag mbëndum ndox fii ci àll bii mënula am mukk te sax yàlla ku baax la du far nit ñi mu sàkk danga dof nooyin wante nooyin moom faalewul seeni wax yu ñaaw ndaxte gëm na li yàlla wax muy wey nag ci yett gaal ga di waare naan réccu leen yàlla dina àtte àddina ci jub lu tax gëm leen kàddug yàlla lu tax ngeen bëgg a sànku am bés nag nooyin ak njabootam àggale liggéeyu gaal ga ci aaya bu mujj ci juróom benneelu saar ci téereb njalben ga lii lanu ci jàng noonu la nooyin def lépp li ko aji sax ji sant moom la def léegi gaal gi sotti na lépp mat na lenn rekk a desoon mooy fokk nooyin ak njabootam dugg ci biir gaal gi mën nanu déggaat nooyin ni muy fexe waata gëmloo nit ñi naan déglu leen yàlla rëccu leen te gëm kàddoom mbëndum ndox mi léegi mu ñëw agsi leen ci gaal gi bi ngeen amee jot bunt baa ngi ku ci jaar dinga mucc wante su ngeen bañee dugg nan ngeen di rëcc mbugalu yàlla noonu mu leen di artu ak farlu wante taxul ñu déglu ko naka noonu ci saar juróom ñaar mbind mi wax ne bi nga xamee ne loolu am na aji sax ji ne nooyin duggal ci gaal gi yow ak sa njaboot gépp ndaxte ci jamono ji yow rekk laa gis nga jub fi sama kanam ci bépp xeetu mala mu sell jëlaale ci juróom ñaari góor ak juróom ñaari jigéen ak ñaar ci mala yu sellul yi ñuy bu góor ak bu jigéen te it ci xeetu picc mu ne jëlaale ci juróom ñaari góor ak juróom ñaari jigéen ngir seen xeet bane far ci kaw suuf fileeg juróom ñaari fan dina wàcce taw ci kaw suuf diirub ñeen fukki fan ak ñeen fukk guddi ba far ci àddina bépp mbindeef mu ma sàkk nooyin def la ko aji sax ji santoon lépp lu tax nooyin ak njabootam dugg ca gaal ga ndax dañu gisoon asamaan si xiin wala dañu xeeñtu woon taw bi déedéet asamaan su set wecc lañu gisoon bi ñu duggee lu tax nag kon ñu dugg ca gaal ga lenn rekk moo taxoon dañu dugg ca gaal ga ndaxte gëmoon nañu li yàlla wax xëy na amoon nañu nekkoon ci biti di xalaat naan man itam gëm naa yàlla wante duma dugg ci gaal gi gëm naa yàlla wante li looyin di waare mënuma ko nangu lan lanu wara wax ci nit ñooñu nag xanaa lii gëmuñu yàlla ci dëgg-dëgg ndaxte gëmuñu li yàlla seede jaare ko cib yonentam tuubuñu seeni bàkkaar te bañ nañu jëfandikoo rawukaay bi leen yàlla jox jaarale ko ci nooyin nit ñooñu dañu doon teral yàlla ci seen gémmiñ waaye seen xol sore na ko kon nag mbind mi ne na noonu nooyin ak ay doomam jabaram ak jabari doomam dugg ca gaal ga ngir mucc ca mbëndum ndox ma te mala yu sell yi ak yu sellul yi picc yi ak yi raam duggandoo ak nooyin ca gaal ga ñaar ñaar ci góor ak jigéen ni ko ko yàlla sante woon ci kaw loolu aji sax ji daldi upp buntu gaal gi gannaawam ndax dégg ngeen li yàlla defoon gannaaw ba nooyin ak njabootam ak mala yi duggee ci biir gaal ga mbind mi nee na aji sax ji daldi ub buntu gaal gi ci ginnaawam bésu merum yàlla bu mag bi agsi na yàlla muñaloon na niti jamono jooju diir bu yàgg wante léegi muñam jeex na meram rekk a des yàlla tëjoon na bunt bi te bu yàlla tëjee bunt bi kenn du ko mën a tij noonu yàlla indi ci kaw suuf mbënn ndox ni mu ko digee woon asamaan si tàmbalee soppeeku ba lëndëm ngelaw li jóg ànd ak xiin ak dënnu ak melax ak yëngu-yëngub suuf te léegi doomu aadama yi daldi tiit bay lox bi ñu amee jàmm ñeme yàlla ci ay ñaawteef yomboon na leen lool waaye te léegi bi ateb yàlla tàmbale wàcc ci seen kaw gémmiñ yépp ni miig waxtu wi ñu war a jaar ci àtte bu jub bi agsi na te amatul fu ñu mën a nëbbu naka noonu taw bu metti daldi wàcc ndox mu bari xelle ci suuf géej yi ak dex yi wal ba def mbëndu ndox mu mag lool ñépp daw wuti tund yi ñi doon ñaawal nooyin aka weddi waxi yàlla léegi xam nañu ne li yàlla waxoon jaarale ko ci yonentam mooy dëgg wante seen xam-xam boobu du leen jëriñ dara ndaxte léegi réccu fekk na jëf wees maanaam jamono yu mucc wees na xanaa nit ñi doon nañu woo nooyin ak baat yu kawe naan nooyin nooyin ubbil bunt bi te musal nu gëm nanu la léegi gëm nanu la gëm nanu la wante fekk na yàlla tëj bunt bi te bésub mucc wees ñaan jooy fëgg bunt bi xam dëgg gi sax dara mënul woon soppi xalaatu yàlla bu yàlla tëjee bunt bi kenn du ko mën a tijj naka noonu mbind mi nee na diirub ñeen fukki fan taw bi ak wal mi di gën a bare ba muur kaw tund yi sax waaye gaal gi di tëmb ci kaw ndox mi te bépp mbindeef bu daan dox ci kaw suuf daldi dee lépp luy dund ci àddina daldi sànku nit ak jur luy raam ak luy naaw daldi raaf ci àddina nooyin rekk a des ak ña àndoon ak moom ca gaal ga ndax yàlla def na li mu dige woon aha kay ndax àtte na bàkkaarkat yooyu bañoon a réccu waaw waaw àtte woon na képp ku nekkul woon ca biir gaal ga ni mu ko waxe woon kon nag mbokki déglukat yi fii lanu war a yam tey ci nettalib nooyin bu soobee yàlla dinanu ko àggale ci émission bi di ñëw ba gis li xewoon ak nooyin ak njabootam ga nekkoon ca gaal ga wante bala nuy tàggoo tey am na lu am solo lu nu yàlla bëgg xamal jaarale ko ci nettalib mbëndum ndox ma mooy ne yàlla sàkk na beneen bés bu muy àttee àddina ci njub te bésu àtte bi di ñëw mooy gën a metti fuuf àtte bi mu wàcce woon ci jamonoy nooyin déglu leen li benn yonent bind ci mbir moomu di bésu penc ma mu ne noonu ma gis ngangu ne mu mag te weex ak ka ca toog asamaan ak suuf daw sore ba ni mes ma gis néew ya mag ak ndaw ñu taxaw ca kanamu ngangu ne ma ñu daldi ubbi téere ubbi itam beneen téere téereb dund bi ñu àtte néew ya ku nekk ci say jëf ni ñu ko binde woon ca téere ya noonu képp ku ñu bindul sa tur ci téereb dund bi dees na la sànni ci déegu safara si yow mi ñuy déglu tey ndax am nga kóolite fa kanam bésu àtte bu raglu boobu ndax bind nañu sa tur ci téereb dund bi ndax jaar nga ci buntu mucc bi la yàlla ubbil kàddug yàlla nee na tey ji mooy jamono ju jekk ji tey la bésu mucc gi gis nanu ni yàlla muñale woon niti jamonoy nooyin diir bu yàgg wante ci mujj ga tëj na bunt mucc bi képp koo xam ne bañoon na jaar ca buntu gaal ga jaaroon na ci àtteb yàlla ci lu jëm ci bis bi yàlla nara àtte àddina si mbind mi nee na ni sàcc di ñëwee guddi noonu la bésu borom bi di ñëwee fekk nit ñi naan lépp nga ci jàmm ba ni leew booba musiba bett leen ni aw mat di bette jigéen ju ëmb te kenn du ci mucc kenn du rëcc ci bés boobu dudul ñi jaar ci buntu mucc bi yàlla tëral ndax xam nga buntu mucc boobu yàlla ubbil doomi aadama ci bésu nooyin ya ñan ñoo rëccoon ci àtteb mbënd ma ña jaaroon ca buntub gaal ga dong ñoom rekk naka noonu itam ci lu jëm ci bésu penc ba mbind mu sell mi dafa nuy firndel ne yàlla benn buntu mucc rekk la ubbil doomu aadama ndax xam nga buntu mucc boobu kon déglul kàddu ku wóor gi jibe ci gémmiñu ramokat bu sell bi yàlla yónni ci àddina mu ne man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc te ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doos jaar ca àtte ba mbokk yi fii lañu yem tey wante ci coobare yàlla dinañu dikk ak yéen ci yeneen émission ngir jàng lu bare ci mbirum musalkat boobu yàlla yónni ci àddina moom mi wax ne man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc jërë ngeen jëf ci déglu bi émission bi ñëw bu neexee yàlla dinañu àggale nettalib yonent yàlla nooyin nu ngi leen di fàttali ne émission yi ñuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am mën nga noo bind te dinanu la wax nan ngay def ba am leen su fekkee itam am na ay téere ci mbind mi yu la soxal mën nga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis bu leen fàtte def seen adresse ci mbind mu leer jërëjëf kon nag jàmm ak jàmm wante na ngeen xalaat ci li kàddug yàlla wax ne kon nun ñi dégg mucc gu mag gi bu nu ko sàgganee nan lañuy mën a rëcce mbugalu yàlla